ay sëñ Basiir da ko gàttal ci wax daa wax ne yaskurullah lillah wax ju manam dara sant yalla ngir yalla wa yuhibullaha lillah wa jazaahu min al mazid almazidi almultazami dawaamu tajaddudi mahabbati wat taqrib yalla ko sant mu doole mom moom lim li mu doon sàkk mooy yàlla gën ko xeyr ci mu gën bëgg yalla ak yalla gën ko bëgg lool rek mo doon mo doon doole lim mu doon sàkk dénkaane yépp it génnul nit ñi da ngeen wuti yàlla wax na ne yaa saaxi laa tafaal li gayri illahi cheyan fa daaka filu gumrillahi li wajhihi lkarimi xud watruk lahu yasub ilayka maa tuxibu ak la mooy looy def na yàlla tax foofu nag kon li may jeexale mooy képp koo xam ne dëgg ma la yàlla ci anam bu mel nii ma ko waxee nii nga xam ne mosoo am dara ci àdduna lu may lu may lu may mësoo bëgg dara lu may yàlla subhanahu wa ko ku mel noonu faw yàlla faye ko lu kawe njort xam nga yàlla dafa wax ci xadis bi ñëpp dëppoo ak wéram imam Buxaari ak muslim ñëpp nettali ko Seydina Muhammad dafa nettali wax ne xadisu qudsi la wax ne suñu borom ci moom moo waxal boppam ne man fu ma sama jaam bi jot rek laa def teg ca biir wax ja sama jaam bi bu doxee ci man lu mat fukki centimètre wër si ma dinaa dox mètre wër si ma soo doxee mètre wër ma ma dox kilomètre ci misaal wër si la soo dee dox di ma wër si damay daw gàttamu la suñu borom moom mooy wax yonte bi wax na ni jaam bi nga xam ne dafa dëkk ci mooy yàlla bu dee ba tuub di jéggalu yàlla bu toogee di jéggalu yàlla yàlla dana ci bëgg mbégte moo xam ni mooy raw waa ji nga xam dafa nekk ci àll ba naroon fàttu mu ay bagages am nar a sànq dem ba nar ko gisaat bagages yi dañ jot lekkam ak ndaanam yépp na muy bëggee maanaam waa nekk ci digg àll yor ay bagages am def ko ci gileem gileem la sànq mu dem ba gis ne moom dee rek ko dese ndax moom war waayo dem lekk ak naan nga dem mu ne naa tëdd fii faatu bi mu ne yemaat ci gileem gi mbégte ma muy ba àgg ci jaawale wax yow suñu borom yow yaay sama jaam man may sa borom maa ngi lay sant maanaam njuumte nga ne mbégte mu rëy rëy ko waral yonente xam ne yàlla mooy gën a bég kooku ci bu nit ki ñëwee di ko di ko jëm yàlla boo ko wutee yàlla ci faw loolu dinaa ko wax lu bare bare faw ñu yëg ne yàlla buur bu baax la boo xam ne yërmaane la am ci jàmm imaamu ahmad نقلنا حدث بأمسر مدوانس يلدبران سنبر المواتي حدث قرسينا يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرمل إليك يا دم آدم جوجل تحرك أم يني ورسما من لم يدخ ورسلا سؤال الله ورسما لما يدعو قتل بشر سنبر المواتي حدث بأمسر المواتي تي أخبار سيدنا داود imaamul Xasaali nekk na te ne suñu borom masaax Seydina Daawuda ne ko yaa Daawud law ya'lamul mudabbiruuna anni kayfa intidaari lahum wa rifqi bihim wa shawqi ila tarki maasihim la maatu shawqan ilayya nit ñi nga xam ne ñoo ma war ginnaaw gi ma leen di xaar ak ni ma leen ñeewante ak ñi ma bëggee ñu dëpp mu bàyyi lu bon loolu ñu ne buñ ko xamoon ñoom ci moom dara dee ci cofeel ndax dañ xam ne eh, yër yërmaane ak bëgg ki nga xam ne moom laa moom laa nag loolu mooy ñi ma war a kon ñi nga xam ne ñoo ma dëgg ma ci kon nan laa war a jëflanteeg ñoom yàlla rek moo xam ne muy jëflante ñoom Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne dundam yëpp da ko def ci yàlla subhanahu wa taala moo tax lu ñu la wax ne yàlla may na ko ko jàppal ne lu ko kawe mën naa am loo yëgul li ko yàlla may ci ay may yàlla rekk moo ko xam di nga ak moom suñ duwaay ci boppam suñ basiru nee na daana wax ne ma xadaatu rabbi fi ubudiyati ولم يخدعني تبارك وتعالى في ربوبيته من صدق وعده وحسن جزائه ولكن الدنيا ليست بدار جزائه انما الشان في الاخره سيدو الله yàlla day waruma ko ci jaano gi ko jaamu waaye moom it waruma naxuma itam ci nekk di nekk buur boo xam ne lu mu def ko ba tax na lim yow ma xayaam lee si xam li nga xam ne moom la ma dig ak moom la ma nar a fayee ndax adduna ak pay da ci xajul noonu yi ñu jàppe fay kër yee lekk yee naan yee tabax yee mbedd yii nii yooyu loolu daal si doon jëpp bokkul ci fay la ko yàlla fayee loolu ëllëg la ci yëpp teg la lam tasdir anhu muxaalaf mooy mës def luy nuru juyoo ndigalu yàlla subhanahu wa taala mës itam def lenn lu amul mbaam wax ci dundam yàlla defoon na itam ci mujjam rawatina adduna wërsëg waaye wala di ko masaa di këriñam dawa ci téye dara lépp dafa daa joxe ngir yàlla bëtam itam mës tege ci xew-xew yi àdduna bi mës itam diglu ku koy tagg mbaa ku koy ŋañ yooyu mës koy yitteel ci yàlla muy jëmm joo xam ni dafa dogoog lépp lu may yàlla subhanahu wa taala dëgg ma yàlla ku mas di àndal itam ci yàlla lay àndee ku mës a tàggoo rek yàlla moo leen tàggoo danaa wax ne xubbiya fillahi wa bughdi fii maanaam ku may bëgg ci yàlla la lay bëgg ni nga toll ci yàlla itam noonu laa lay bëgg